What up guys? What up guys? What's up everybody? Some guy. yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Jadi ko may J, Ibrahim Ndaw, Mustafa Mane, Dagoud from Belgium, di ko may Aboubakar Diallo, Ousmane from Germany, di ko may Amadou Dame Diagne Mamadou Fall, di ko my Ismail Cissé, Ibou Ndiaye, I got you bro. But some guy take tey hip-hop lay defaan tay sama gars tay ñi ngi dem fan ñi ngi dem Cap si Black ma baby fekk fa benn boy bu yooyu tudd <laughs> Dalla Valley aka Mesatsu aka Young Fief aka Omzo Dollar aka Tupac Back aka réew aka rap vulgaire aka conscience si dernières années yi kooku mooy Omzo Dollar Boy waa ji mu ngi nekkoon Buzz Lab yu naam sayeen bu mu nekkee Buzz Lab moo doon numéro 2 bi naam sayeen xale yu jigéen ñi bëgg ko Omzo Dollar concert bu mu demul du neex couplem la gars di xaar ci fa de buzz yi léegi mu jógee Buzz Lab bu mu jógee Buzz Lab am affaire yu bëri yu mu def quoi léegi balaa ñuy def dara dañuy def intro tu vois xool Omzo Dollar yu naam sayeen parce que daa am intro boo xam ma tax def ko son ba léegi man damay damay damay damay damay damay dama metti tellement beat bobu Omzo dako Daku, daku, daku, daku dal isa fi bu nice mais defu ko son legui ba lañu jëk deglu man déglu man ma ba néega ba waktu waxtu bi jot ye waxtu bi waxtu bi ah! My nigga, walk to bitch up. Uh, uh, ah! uh. Ah! Nigga, ah! walk to a bitch up. There's a gentleman out the way named Dollar Billy. AKA Young Fear. Monster. Made the reef. Gel gel gel dur bir. Bak usta. waxtu bi jot waaw waxtu bi jot waaw nga waaw waaw dégg nga wax jooju somebody took my pride nigga thank god for for enggak ya lan thank God for God pasang US eh eh eh eh ah oh, waktu bijak Woi. Rolex. <laughs> hey. What to be? What to be John. Ah. Oh, what's up, nigga? Bob Modern, what to be Jordan, you know what I'm saying? This boy is crazy. I'm um, so, I'm um, so, that's a day, you know what I'm saying? yàgg am buzz buzz laa xoolal xorom mu ba léegi dafay jooy baas ne ko Omzo yaay suma rappeur dama la bëgg yi nga xam seen a def yu naam seen ba boobu ba léegi defoon ci PMC pour muy clair first mixtape soo boobu tamit damay gaañ lii la defoon damay ah. ah. no no no no no yeah yeah am so nga

back back to back back يعني امسي لهم لك دم خفيف زح زح وكبير انا يوم زوجين وقبل بيتات بس اجلد ناري سهو ناري وكله كلك كاك كلاك No, ah, I'm on the obzo. I'm on the obzo. Right, bitch. Monster. Woo. Eh, kooku moo doon nëw juutu yu naam teen labelam nëw juutu bañ na ko ba bling bling ba muy tàkk nëw juutu am so neen du mës a joxe taatam yu naam seen réel la doon ba xëy dee naam seen bañkat la nëw juutu gis a classe yu muy def yu naam seen am so boo koy tuuse muy ñëw waaw du daw classe te da ko mën nag yu naam seen ba léegi pare guñu de pare guñu de dañuy dem old school de defoon na lii tamit am la waaye kay ku ne xam nga yaay hey eh, am na ñi ma bëgg non daf la ah jëlal jëlal gos bi jëlal jëlal dëgg bi dëgg bi mata ah, bi waaw waaw sa papa papa Mam premier, mam premier, mam premier, mam premier, mam premier, mam premier, mam premier, mam premier. Ndaw bandi boy bi ay it kese la ay it kese waaw jël ko waaw ah waaw fi sama me fi ma mere jël bon appétit man ma rek aw ma di dëgg ci nee nañ may dëgg bi nee nañ may dëgg bi kaf sax ma yëkkati dëgg dinañ dinañ eh xam nga kan mooy kan xam nga kan mooy kan yan ah waaw waaw am mooy seen maam maam premier koro ma ñoo maam premier maam premier maam premier maam premier maam premier maam premier ah

net waaw ee eh, am na ñu ma bëgg ee eh, xam na ñu di wax dëgg Baye Fall ay waay ee eh, xam nañ kan mooy kan xam nañ kan mooy kan ee adresse bi kapse la waaye now jutu gang ma crew yë yë yë Ah, ah. ay maam premier maam premier maam premier maam premier. sunu ma. ah baaw baaw. ay koo mu ne doo fi jàll de. jaru ko jaru ko jaru ko. waaw. ngeen booy ñëw yéeg public bi booy lépp à bës. moom seen ñu dóor boo pare ngeen yéeg public bi. càggu leer. ah si ñaari fatiha. jëloon ko animation jërëjëf jërëjëf ah. ah booy bi dafa technique technique kese la technique. wóo ay couvre show couvre feu show ma premier seen maam ah non waaw. waaw koj ko seen néegu maam boobu mooy maam premier neen mooy seen maam moo leen jëkk rab yooyu ñëpp moom amul benn kii quoi instant fil non booy bi dafa dee quoi ina am Omzo ba léegi ni xool dañuy dem ci kii de rétro yi rétro yi rétro yi na am seen Omzo moo fi dooroon non bàyyi ñu jël bii rek now you to gang Whoa, whoa, do Sanzé. Para, para, do Sanzé. Para. Wow. Wow. No, no, rap ko mo suma gani. Ah! What? What? Ah, dah pinjangan sama ini ke. Sisi. si Eh, semua. Eh, picu. Eh, ada dua. Awan. Oh, eh. Ah. Berapa Ah. ah. waaw. Eh. loolu léegi mënu ko ranger ab bonze. eh. gars yi ëpp classe waaye demuñu school. eh nag jamono school. ñu bëri di taal. fi mooy Kër Sido fa ak yenn heure yi ab bonze. ah eh am na ay nit ñu bon di tuux di bon ba du ñu jaar di waxtu julli comme que ah dara du saale du saale dara dara dara du saale ay ay ay du changé bësaat nañ léppay duul du changé karak du changé jël waaw loolu am naa ko booy balaa may raab ak bay booy quelque booy amaa bi dama mangé eh fitri baaxul ci sa santé tëgg bëgg eh boo nooyee na nga taxaw fu dëgg e suuf la comme génne di su mere maama maama ربني دم لا ندم ay wasa rabbu mi dina rek ma ñaanal sa doom ndax rab bi def moom laa leen dàq yi am seen te ba am mu li bis nigga da nga bañ bis nigga nigga da nga bañ tu pouvais pas nous sentir pourtant succès la Epic sendiri kedon ben di pube Sandi reputasi eh, selektor kan ah big boy ah lagi si, ah memang mereka ketamuan leboy dan gejum fis lima yu ya leboy dukudisa ah

ah Bitch, nigga da eh, don't bañ nigga don't don't nga To bañ me, pouvais pas nous sentir ay pourtant bés la ñu doon xeeñ Bitch, nigga bitch, nigga da don't bañ ay nigga don't don't nga doon bañ benn ñaari mixtape yow léegi lépp leer nag oui may ma ma zalone di zalone eh ay coow di zalone di zalone ay couvre-feu di sànni. ah. doo eh. eh, sama tur ci car rapide man ni sëriñ laa. <laughs> ne na tur car rapide turam si car rapide man ni laa no bu boy is crazy. yu naam seen boy bi loolu defoon ci mixtape bi yu naam seen di ko def Issa Fil di ko def di ko def di ko def ba gars yi naan boy bi Issa Fil boy bi Omzo mi Issa Fil. booy bi rab vulgaire lay def booy bi rabu kii la rabu maa nigga maa nigga tiens fil booy bi bàyyi rab bu mu bàyyee rab mu dem bu mu demee buzz la Baas dafa nekkoon mais Baas xam rek mel ni bi Messi euh, bi Neymar demee Messi da ko doon gelu quoi Baas da doon gelu Omzo parce que Omzo dafa amoon gën a a xam àdduna moo mu ñëwaatee ci la génn benn mixtape bu mu génnee mixtape bi Issainville ñëw naa léegi rabatuma rabu booy rabu rabu mais sama rab day dugg ba ci néeg yi fekk paay ak mère yi xoolal yokk leen xel moo tax mu ne lii ah day yegg son bi ki mooy buur ah one two. waaw. waaw. waaw. man bu ay yow xaalis bi du wóor même ah. dëgg la. dëgg la ko. baal mbokkam dafa am dafa am mister lay ñaan taw mu ngi gis météo météo heure bi kër gi baaral baaral baaral thì gần đây thì mới vương ờ, thì mới chết rồi mới chết mới tâm vang thì mới đau kiểu đau thì mới chết mới đi về thì mới đến đến ha ha ha ha ha ha thì mới về được mày thì mới yên được mày Wait, wait, eh, I'm not gonna able. Y'all are ready, boo. What, what, what, eh, malah jauh sadai dek. Yeah, yeah, eh, allah rek kay buur daa am nit ñoo xam ne yow daa am nit ñoo xamante ni bële ba ñu ngi dee ay doo saralul sax doo saralul sax sax sax sax doo saralul sax so saralul sax yeah waaw waaw di daw jàng ngir daw kese yow kese kese bon devoir waaw waaw waaw jour du divorce dëgg la ndax seen xeet ah weex teel si a nag yàlla sàkkul Adama ak Roméo booy yaa gis nga plus gars yi la sonal quoi you know what I'm saying you know what I'm yàq sama buur bi quoi you know what I'm booy mooy loolu quoi. il faut nga bàyyi yoon ku jël yoonu ndam jullit nga ba Sénégal. sama mu nekkoon diw mais yow yaay kan. jégalu de gars yi. sapık ılıkım O da yarı kukatın sapık ılıkın Müzikte bakarım bulutların Degretle bu Ben daranak